ci màggaluk Daaru Salaam Dioli gu amoon ci dëkk bu sell boobu kii di Serigne Bara Dioli nekkoon fi député jamonoy président Abdoulaye Wade xamal nit ñi yorinu dëkk bi ci teewaayu kii di Ousmane Sonko moom Serigne Bara Dioli ma ngay rafetlu teewaayu askan bi yëpp ak taalibe yi rawatina Ousmane Sonko ak ñu mel ni moom waaye ma ngay xamle ne képp ku nekk président réew mi fi teg waaye ma ngay àddu tamit ñi nga xam ne yu nekk ci parti te lu bi rek neex leen te ma nga cee xamle sax ne gum nekkoon député fukki at nekk sénateur juróomi at kenn mësu koo dégg ci lu safaano li nga wax rek nee naa leen daal bu leen fa nekk euh, député euh, parti na ngeen fa nekk peuple ndax euh, réew mi ñoo leen fal dëgg la dañ ko jaarale ci parti mais parti bu leen fa nekkal parti lu neex parti ba rek neex leen walla ngeen di ko wax bu mu am loole it yaakaar naa ne doon na loo xam ne e, noonu la ñu doxe ndax man mii seen waajur nekk naa député fukki at nekk sénateur juróomi at waaye kenn mësuma fa dégg loo xam ne lu dul noona la kon yoon woowee nag rek moom laa leen di teg ñu ngi lay ñaanal nag yàlla defal la jàmm ak xéewal boo gënee ci réew mi yàlla nga jot waaw ki gën ci réew mi rek waaw ndax nit ñu sonn nañ de baax na <laughs> kàddu Cheikh Abdou nag moom Serigne Bara Doly ma ngay dëggal ay kàddoom ni fekk ma nga fay nekk moom magam ji Cheikh Mbacké Bara Macky a gañe dëkk bu sell bi di Touba. ndax li li lay jox firnde mooy. ñaan Macky Sall jigéen lu fi am loo fi gis rek moom mii ci jamono yi moom Ablaye Wade ko fi indi moo fi indi yoon wi moo fu indi courant bi moo fi def forage bi école bi postand bi jamono Ablaye Wade moom moo ko def juróom-ñaari ati Macky Sall du yoolu sero jumaa ji ñu ngi ko tàmbali moo doon joxe at mu jëm mu joxe 10 tonnes ba léegi sama kon li sëñ bi wax rek dafa tënk lépp ñu nag mooy suñ kilifa ñun te li ma wax moo am tout sof Macky tout sof Macky ñu ngi si ñu ngi liggéey fii ak feddument lépp dana la leer. incha allah ay tout cas fii moom tant que maa ngi fii dund maa kii Macky du gañu Touba. xanaa mu rey bu bare dañu ñaar ñoo ko yore te suñu énergie daan ko conserver ndax buñ continuer gagné moy suñu ndam pour ëllëg incha allah yàlla baax merci waaw <laughs> jërëjëf nga ñaanal ko baax nga ñaanal ko baax jàpp la li ma leen di daal yéen opposition bi na ngeen ànd bu ngeen doonee benn li ngeen bëgg da ngeen ko am waaye bu ngeen tàggaloo day ah. kii di Cheikh Mbacké Bara ak Cheikh Abdou doon ay député ci assemblée national ginnaaw ba ñu gagné élection législative yi ñu weesu waa coalition benn Bokk Yaakaar bu président Macky Sall te di leen àdduwaat ci élection yi ñu doon mal